le eh, premier adjoint au maire. que vraiment que qu'il puisse le répéter vraiment fan yaram aussi aussi la la parce que c'est avec succès le gérer Médina la relation avec les avec les de la Médina a ses relations avec toutes les entités de la Médina mais bu ñuy wax Bamba dañuy wax d'abord les réalisations et que bu ñu toogee ba tey ju di wax dañoo wax l'heure du bilan a sonné te le bilan il est concret mën nañ ko xool ci fànn bu nekk fànn boo ko jëlee rek am nga foofu am nga fa teg sa baaraam ne fii lii moo ko fi def moo tax du ma ci sori xam naa dinañ gën a gën a gën a toog gën a waxtaan et que vraiment di ko souhaiter vraiment que mu koy def ay ati at encore yàlla gën ko may wér-gu-yaram vraiment. li ma gën a touché ci moom parce que mine de rien au moins. une vingtaine d'années qu'on se fréquente. maanaam moom ñoo duggandoo dans le premier conseil municipal ici en 96 mu nekk secrétaire élu man ma nekk le président de la commission jeunesse sport loolu taxu ñëw amee jën la loolu yàgg na loolu dafa wane rek que tey ñi yore maire bi tey jii expérience na yore maire bi maire bi ku tëb rek du ku tëb rek yor ko surtout maire Médina dafa am ay particularité dafa am loo xam ne daf ci ne loo xam ne ñu bëri xamuñu ko ba mu dugg ci nag pour xam ko et li ma gën a li ma gën a li ma gën a frappé ci Bamba mooy d' abord euh, li tubaab bi wax euh, euh, dévouement am dafa farlu ci li muy def te maire yi surtout maire yi lool loolu la laaj dafa laaj na nga disponible vingt quatre heures sur vingt quatre dafa laaj vingt quatre heures sur vingt quatre du maire boo xam ne da nga koy booleeg leneen beneen liggéey da ngay xëy fii di fi wàcc te loolu c' est extrêmement important parce que les besoins sont énormes c' est quartier boo xam ne dafa am ay particularités motax tay tey vraiment je peux dire que vraiment euh, le mandat qui qui qui finit actuellement mën nañu wax na c'est un mandat qui est marqué par vraiment une grande réussite. Mame Mbaye Ndoye waaw di ko souhaiter rek euh, joyeux anniversaire parce que mbir mi nii ni mu yëngoo nii li Wolof di wax rek cin bu naré neex bu baxé xéñ suba dañ ni monsieur le maire moom mooy def anniversaire mais nañ japp ni medina mooy def anniversaire ndax borom medina suba mo xewlé kokoy Mouhamadou Bamba Fall ni ci xaar ñep nak pour ñu ñew and

ñun la les roses de monsieur le maire Bamba Fall ñoo fi ñëwoon tey pour suwete ko joyeux anniversaire ñu ngi koy ñaanal yàlla bàyyi ko ci maire bi yàlla may ko gudd fan ak wér gu yaram yokk tawféex yi yokk xéewal yi ñun nag suba la anniversaire bi te dañoo ñëwoon rek def bi. léegi ñu ngi ñu ngi woo waa Medina ñëpp ñu ngi leen ñu ngi ñu ngi leen di xaar ñu ngi leen di woo ci bésu monsieur le maire bi ñu ngi ñu ngi ñu ngi xaar ñëpp. ñu ngi rafetlu tamit aussi euh, leel yoon bi nga xam ni ñoo ñu tuddee bi. Wow, mashallah, allah kontaan nous, baax te di joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire monsieur la mère. joyeux anniversaire bés bu aussi si moo neex bés bu dellu si moo monsieur le joyeux anniversaire. Ah. Bamba Fall.

Wally Rose